adhésion totale. Je pense qu'effectivement, nous avons besoin de rendre nos villes propres. Nous avons besoin de rendre nos villes propres. Et comme on a l'habitude de le dire souvent dans nos villes, quand vous rentrez, ce sont les adultes qui vous saluent, qui vous disent bienvenue. Et quand vous sortez également, c'est les adultes qui vous disent au revoir. Et dans la ville même, tout est sale en général. C'est Thiès, c'est Mbourg, c'est Tiaouane pour ce qui nous concerne et toutes les grandes villes, mais c'est un peu partout dans le Sénégal. Donc c'est bien qu'on ait effectivement cette initiative rendre notre environnement, notre cadre de vie propre. je pense que ce sera bien, d'abord pour le pays, ce, que, que l'étranger qui arrive peut voir. Donc c'est également bon pour nous-mêmes, pour notre santé. Je pense que c'est généralement bon d'être dans un cadre sain. Donc c'est une excellente initiative de M. le Président de la République. Et nous autres autorités administratives, nous allons nous investir partout dans le pays pour pouvoir réaliser effectivement cette initiative. Mais absolument, et le président a décidé, on a décidé ainsi, c'est tous les premiers samedis du mois. Donc le 1er février, on va reprendre ici également à Thiès, donc euh, des actions du genre. Et on veut que ça soit partout, dans chaque famille, dans chaque résidence. Je pense qu'on peut sortir et faire effectivement un jour de nettoyage. C'est une journée nationale. Nous, on l'a fait donc devant la, dans le jardin public jusqu'à la gouvernance. Et sur l'axe également, où vous avez la préfecture, la zone militaire numéro 7, la gouvernance, et d'autres services de l'État. c'est pour montrer effectivement que nous avons initié commencé donc là où on réside nous-mêmes. Et on veut demander à chaque personne également de faire là où elle réside. Le suivi et le contrôle, euh, c'est toujours difficile après le premier jour. Euh, quelles sont les euh, dispositions prises pour la pérennisation donc, de ces journées Pour la pérennisation, ça demandera d'abord l'implication de toute autorité, hein, toute autorité administrative, toute autorité donc, administrative ou alors autorité de collectivité territoriale mais également à toute personne. Hein. donc chaque vraiment premier samedi du mois, pour le fasse nous tous. Hein c'est donc la première initiative de continuité. Et chacun avec les moyens dont il dispose. Nous, aujourd'hui, on a mobilisé donc euh, l'UCG, qui est une unité gouvernementale. Nous avons mobilisé les, de l'armée. Nous avons mobilisé les riverains du quartier, l'ASC qui est dans le quartier et les personnes qui se sont organisées pour entretenir le quartier de manière générale. Mais ce qui doit se faire dans tous les quartiers, hein, actuellement à la du Mao donc le sous-préfet de Thiès Nord avec le maire de Thiès Nord également, sont en train de mener une action de genre. Mais on veut que chaque préfet dans son département, sous-préfet dans son arrondissement, chaque maire donc, fasse une action de genre. Et également, chaque délégué de quartier, chaque personne en qui vit dans, ce pays-là doit porter cette initiative. Maintenant, continuer à être propre tous les jours, ce n'est pas un jour dans le mois, mais continuer à être propre tous les jours. Et comme me disait euh, euh, une personne, une vieille personne, être propre, c'est un comportement d'abord. Un comportement. il faut le faire quotidiennement. On se lave tous les jours. Donc normalement également, on, fait le nettoiement donc, de sa maison tous les jours. Mais il faudrait penser à ce qu'on a en commun, c'est la, rue. Donc nettoyer la rue tout le temps et éviter effectivement de prendre, rendre propre sa maison, d'être sa même propre et de prendre le tout, toutes ces détritus, euh, toutes ces ordures, les mettre dans la rue. C'est ça qu'il faut éviter. je pense que les collectivités territoriales vont faire le nécessaire, les communes en particulier, pour perpétuer l'action. président d'abord mooy ne ñëpp ñëw dugg ci journée bi ku nekk li xam ne moom la war nga def ko ci commencé nag sa buntu kër moo tax ñun ñu commencé fii ci buntu gouvernance mën naa wax muy jardin public xam ne moo dend gouvernance bi lañ commencé li ñu bëgg mooy tey avenue bi xam ne bi yëpp mooy départ de ba ni muy yeggee fële ci bopp ah ñu mun ko nettoyer parce que zone militaire ci la ubbeeku ci la préfecture ubbeeku ci la gouvernance ubbeeku état gis ngeen trésor ak CRF yëpp ci lañ ñu jël par place bi pour wane ne ku nekk na commencé ci buntu këram nettoyer buñ ko defee ku nekk nettoyé sa buntu kër yaakaar ne dëkk bi dina set. waaw li njëkk d'abord wan leen ni journée bi du tey rek bàyyi que weer bu nekk la samedi bu jiitu si weer bu nekk donc ñu njëkk njëkk njëkk loolu mooy li njëkk ñaa ñaareel bi mooy tamit bu ñu paree ku si nekk ak collectivité commune yi en particulier war nañ continuer parce que nettoiement si commune yi la la jokkoo état bi nga leen di jàppale à travers e CCG loolu nag am na action yoo xam ne war nañ di ko continuer muy commune bu nekkoon ne di mobiliser wu si 30 jours mois bi pour mën a def ba sa dëkk mën a set. léegi nag lu sand bu nekk nag Sénégal gi yëpp mun a booloo def loo xam ne ñëpp koy bokk. bon xam nga de désencombrement bi sa pareegul en vérité dañ commencé woon mais bon ak hivernage bi bëggoon woon kon ne di sonal nit ñi trop moo tax ñu posé woon mais day continuer day continuer malheureusement notre vaillant préfet day dem mais vraiment day mu wax la ki kuy ñëw tam da nga continuer parce que tamit loolu engagement président de la république action président de la république Euh, non joxe woon na bu baaxee je pense que li ku demoon si marché bi di gis ne ah vraiment ñi doon déborder yëpp dindi woon nañ leen ah. di doon déborder yëpp dindi woon nañ marché bi mooy ko xolu Thiès mun doon déborder yëpp si bi dindi woon nañ ko bëri na place yu ñu dindi également li des kay mooy continuer ko mais je pense que li ñu defoon moom déjà baaxoon na lu positif la woon et espérer également que nit ñi comprendre nañ ne defar rek moo ñu si dugal quoi waaw bëgguñu yàqal kenn defal moo ñu si dugal. ah, ah xam nga am na initiative bu ñu pour yenn villes yi fii Tivaouane moo nekk yoon boo demee Diourbel par exemple Touba woon ak yeneen ni dëkk yeeg Thiès Kaolack yooyu yëpp ñu ngi si woon. donc am na mais loolu lu ñuy continuer la Thiès c' est une des plus grandes villes du Sénégal c' est comme Mbour après boo génnee Dakar peut être mooy dëkk yi gën a mag effectivement loolu c' est vraiment prochain bi Thiès dina dugg Mbour dina dugg ak yeneen villes yu mag yi mais loolu yëpp phase euh, initiale la woon mais xam leen na nag problème ordure moom. yàgg na Sénégal <laughs> problème dafi yàgg na waaw boo xooloon sax organisme yi xam ñu ngi koy gérer rek chaque fois ñu ngi indi di indiwaat ah voilà moo tax di que problème la fi mais je pense que également ñu ngi recherche ay solutions et je pense que ak centre d'enfouissement yi ñu def nii centre yi ñu def léegi pour mën a traité sax traité euh, dama doon wax une fois usine mbalit mu <laughs> am sama moom kii na mais vraiment boo demee Touba par exemple loolu la ñu fay instituer boo demee Thiawane xam ne mbalit mi dootul léegi jël ko yóbbu mais da koy traiter. boo xam ne boo paree li si mën a li si mën a jëriñoo sax da nga ko jël nga jëriñoo ko. waaw a ah, lii lu ñuy rafetlu la muy euh, lii euh, président dogal bi président de la république euh, jël woo ñëpp ñuy daje ci gaaw bu nekk muy samedi di set setal suñu dëkk yi man sama wàll bopp bindoon naa ko ci pour xamal ko ne ko ñun loolu la ñuy def 2016 ba léegi mu ngi dugg ci ñeenti at yi. Euh, boobaak léegi ñun dañuy def altine bu jot ñu jël bu ñu cérémonie de couleur ba pare jël benn wala benn barab àndandoo dem set setal lañ ci jublu woon nag di am yaakaar ne ñiy ñëw di fekkee di gis maire wala directeur wala keren di bale nga ne ah kon man tam naa ci dugal sama loxo ngir ñu xam ne euh, ak cet moom euh, njariñu ñëpp la ndax wér yaram ci boppam du am suset amul ñun bi ñuy danoo màggee ci jamono boo xam ne kenn ku ci nekk da ngay set setal sa buntu kër mu des nag tonn bi te tonn bi dëkk bi moo yore loolu alors mu mel ne euh, euh, mbir mi jógaat na bi président woote euh, waaye nañu fexe ba mu am njariñ ndax bu yemee rek ci gaawu ñu fàtte ko demaat lu yàgg doo ko defaat du am résultat trop dañuy comprendre ne woote bi mi ngi nekk njariñ nek ngi nekk ci nit ñi yeewoo ci ne ah cet gi am na njariñ ndax yëfu ñëpp la euh, dama daan wax tout le temps wax ko bi may joxe vœux yi di wax ne bu jéeri meññee te géej gi laa biir ñu sellal jaww ji koom-koom bi mën a naat ji yaatu Sénégal jëm kanam loolu la gëm ne noonu la wara a demee environnement bi moom bu ñu ko toppatoowul euh, kenn du nek ci jàmm kon li ci loolu la jëm ñuy ñaan euh, nit ñi gën ko xam nit ñi gën ko miin soriwul fii ñu nekk nii am na fi benn terrain benn kër boo xam ne dañ ko clôturé wul euh, ànd nañu euh, service technique ville bi ak UCG plusieurs fois set setal ko génne mbalit mi mais saa yoo fa jaar boo fa jaaree fi ñu tool jaaxle man dama defoon sax tey jii foofu la ñuy tàmbalee parce que nag foofoo nekk ci mbedd mi te moo ëpp njariñ loolu su fekkee ne dinañ jóg di ko def euh, mais buñ ko tëjul bu ñu seetul ki ko moom mu tëj ko clôturé ko. mais loolu day ñëwaat te loo defar defar defar defar loolu nekk ci biir digg dëkk bi su melee nii mu mel day mel ne defuñu dara dafa mel ne ñun si maanaam salte bi dérangé wuñu loolu problème la euh, léegi nag ñun yàlla dogal na ay at ngi nii ñu ngi liggéey ak Fonds pour l'environnement mondiale ba ñu jagleel cees cees bokk ci juróom-benni dëkk yu ñu tànn ci zone UEMOA Sénégal Thiès rek moo ci bokk ñu jagleel ñu koppar yu takku yoo xam ne. Euh, euh, liggéey nañ ci lañ ci waroon liggéey ba noppi mu des rek lenn lu ministre bi yore finance war a xaatim euh, ministre bi nag xawoon a jàpp ci wàllu budget bi ci weeru décembre bi ñuy am yaakaar gis ko ci weeru janvier bi ngir mu mën a xaatim lool loolu su dikkee la muy yombalal mooy xëy na xaa dina ñu may ñu mën a am ay poubelles yuy nekk ci biir kër yi yoo xam dina tax nit ñi di mën a séddale ba xam li ñu war a mën a jariñoowaat ak li nga xam ne kenn mënu koo war a mën a ñu tàqale leen ba ca des mooy euh, ñu jële ci moyen ay jumtukaay yoo xam ne dinañ mën a tonni mbalit yi fépp fu ko mën a fu ko mën a fekk man ko yóbbu it ci barab yoo xam ne danañ koo séddale ba pare nag seet lañ ca mën a jariñoowaat ñu def ko leneen loolu euh, ñu ngi ci am yaakaar mu tàmbali balaa yàgg. koppar boobu mën nañu xam ci ñaata la toll. waaw xam nga projet bi globalement neuf milliards la. neuf milliards yo xamné euh douze pour cent yi wa FEM ñom ñoko def don lool c'est déjà acquis euh, maintenant ci li ci dess dafa am cofinancement bo xamné Banque Ouest Africaine de Développement mom moo koy dem wuti alors euh, loolu nak lañ ca jublu ñom dañoo bëgg bu projet bi défé juróomi at man na demal boppam waral fi def nañ fi ben audience publique bu bokul ak yi ñu yi ñu min bo xamné ne ñi ngi ko defoon salle de délibération woo kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi yëpp nit ñi waxtaanoon ak ñoom consultant bi ñu yónnee woon ak équipe bi ñu yónnee woon waa BOAD ak waa FEM ñu waxtaan ak ñoom ba wax ne bu loola dikkee danañu teg benn ligne de financement boo xam dina permettre kuréel yi bëgg yëngatu yëpp ci wàllu mbalit ci biir dëkk bi ñu jox leen ay koppar ñii ci demu tonni ji bi nii ci transport bi ñii ci leneen ba nga xamanteni ni dëkk bi dina set pour que ñooñu bu ñu ca jëlee ay kattan yu ñu mënul woon amal seen bopp su juróomi at yi rombee ñoom ñu mën a wéyal loola loola mi ñi ngi am yaakaar moo egg ak jàmm. lay démarrer. non ñoo ñoom euh, Fonds pour l'environnement mondial seen direction générale daje nañu ba approuver projet bi depuis la fin du mois d'août maintenant Banque Ouest euh, africaine de développement bi nga xam mooy agence de mise en œuvre le 20 septembre la ñu yónnee notification bi. bi ñu ko yónnee man sama wàll bopp président de la république laa ko njëkk a yónnee boo ko yónnee li ma ci jublu woon tamit non seulement mooy yégal ko ko mais pour que mu mën a soññ ki nga xamante ni mooy ministre bi yore wàllu finance ndax comme dañoo bind ci lettre bi ne euh, ñi ngi xaar ci ñun ministre bi yore finance ci biir Sénégal mu def requête pour financement complémentaire boobu loolu nag moom rek la ñuy xaar bu loolu dikkee ak jàmm bu boobaa yaakaar naa ni di ngeen fi mën a gis ay oto yeneen yoo xamante ne dina wute ak yi fi nekk je pense que suñu boolee boobaa doole UCG ak doole booba di ñëw yaakaar naa ni fii ci Thiès danañ wax leneen lu waxu mbalit waaw ñoom xam nañ dama leen mere dama leen koy wax mu leer bi baa dañ ma invité sax ma ne diine ma ne ñëwuma je ne leur ai pas dit pourquoi je le dis man lu may wax lu ma gëm rek laay wax parce que mënuñu lu ñu nekk ñu nekk ci ak ñoom te bu lu dëkk bi nekk ñoom duñ ci nekk loolu mënul nekk tamit ñun ñii ci ASC yi lañ newoon Nous sommes des anciens leaders de l'ASC. Nous dafa am lu tekki c'était des associations sportives et culturelles mais nous avons impliqué wu le développement de bi Nous savons que dans les années 87 88 ASC les questions démocratiques qui se posaient au Sénégal dañ avons impliqué ça ne voulait pas dire faire de la politique partisane parce que dañ leen côté, nous Nous am ASC ñi Don, ay doomi askan wi te duñu intéressé wu ci li dox ci biir réew ak li dox ci biir dëkk bi loolu munta né alors xaalis buñuy jël mo xam commune, yi diko joxé comme subvention mo xam ñun comme participation à l'organisation des compétitions sportives ba bu amé phase nationale fu mu manti don damay dem match bu jot lu ma doon def dama koy tek ngir lan ngir damay japp né ñom ñoy représenter Thiès

mais si on a ana du pourquoi du bu pourquoi tey jii yi nekk ci dëkk bi mais si impliqué problème il est essentiel que nous waxante voilà on ne peut pas aussi jóg rek football ñu a des def ci bu football bi bi là. <laughs> mais du impliqué Ce n'est c'est pas normal et il faut que l'on mu aussi.